na ba yow yaa liir gën a tabi yaa liir gën a leer ci man yaa ma liir gën a leer nabi ku la xam du xam ne na ci ku la taamu du taamu la ne yu ni ni ku la xam waa xamna tikula tabu tabu yu nabi kula xamwa xamna tikula tabu ku la xam du xam keneen te ku la taamu du taamu neneen ñu ne ku la xam waa du xam neneen nga béggal ma man de yow lay xaar man de yow lay see su ma la gisee nga béggal ma man de yow lay xaar man de yow lay see su ma la gisee nga béggal ma man de yow lay xaar man de yow lay see sey nga bégal ma yow mi yow mi yow mi takkal ku la neex seyal ku la neex àndal ku la neex su la neexee defal la neex waaye daana xam ni daaga xam ni yow may sa seytaane su ma gisu bayam ci damay kontaan ka waxee su ma ko waxulee damay mel ni ku ay tuur solo su mi gi may jàpp yee Mame Fama Gueye euh, GFM point sn donc euh, Titi euh, gëj nañ la dégg gëj nañ la gis donc ñu bëggoon xam ma lan moo waral silence boobu yëpp pourquoi Titi était à l'ombre donc deuxième question bi mooy est-ce que neuf titres yi mën nañ xam yan moo ci bees parce que yi ñu déglu woon tout à benn rek la gis mu bees ci ci des yëpp ay reprise la. tout d'abord maa ngi leen di nuyu di kontaan ci wuy si bi ngeen ñu wuy si tamit parce que loolu moo waral woote bi. parce que vu que dëgg la gëj naa apparaître mais gëj bi yëpp aussi c'est pas parce que nekkuñoon ci liggéey dañ nekkoon ay tournée moo tax parce que l'année passée on a fait huit mois de tournée année bi aussi da ngay gis ne bi ñu paree grand théâtre bi tamit dañu nekkoon ci ay tournée yu ñu doon def ñu débuté ko Gambie après ñu jóge fa dem États-Unis dem euh, bi ñu jógee États-Unis ñu dem Italie bi ñu jógee Italie euh, ñu liggéey ak ak waa ONU nga xam ne ñoom laa doon defal tout récemment tournée yi ma doon def yëpp ba yàlla def euh, ñu ngi ñibbi si semaine bële passé bi ñu ñibbisee aussi semaine boobu dañu retourné waat si Londres parce que tamit dañ fa kii ñu doon def loolu moo tax. maa ngi nuyu ñëpp ñi nekk ci salle bi Ndeye Fatou Diop FM Sénégal au fait Titi dañu gis ne rek euh, album bi da def traditionnel. deuxième question bi mooy que ni parce que gis nañ ni maam Saliou bi da nga koo tëgg traditionnel. ak tamit li nga xam ne moom moo di rasul bi tamit danga nga def traditionnel mbëggeel bi tamit gis nañ ne da nga def traditionnel alors ñu bëggoon a xam rek euh, tamit jooy yi lu ko waral ci moment bii nga xam ne nii yaa ngi toog fii di reprendre son yi di way gis nañ ni émotion mi ngi la jàpp yaa ngi jooy. non <laughs> déedéet c'est que boobu daa greffage bu dugg sama bët bi na jooy ba nag <laughs> ah euh, CD bi donc moo tax ma bëgg ngeen dégluwaat ko parce que du traditionnel l'album qu'on a fait. sànn acoustique ak jazz mbalax ak mbalax moom lañ def parce que maam Sali bi comme ni nga ko waxee acoustique la ah, léegi nag yeneen yi ci des tamit live mbalax la mais yu bees yi am na ci boo xam ne jazz mbalax la. loolu danga ragal noonu laa mbirum suñu boroom ku njëkk yuuxu danga ragal oh Marie, si tu savais tout le mal que l'homme fait. Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer. Évanouir mon innocence, pour moi ma dernière chance. Peu à peu, tu disparais, malgré mes efforts désespérés. Titi ñu ngi lay nuyu. maa lay fay. tàddeel nga ñu fi nag lu yàgg yàgg. <laughs> sama mbokk géen bi ba léegi. waaw waaw ñu ngi jéggalu nag. <laughs> Euh, Titi ñu xamoon euh, danga wax léegi ni da nga def tournée ak ONU. Mhm. ñu xam bëggoon xam euh, lan mooy cëslaay li ci ban cadre ngeen am ambassadeur nga ambassadeur ONU nga wala lan nga. Mhm. tournée bi lan mooy cëslaay yi tournée bi. beneen bi tam moo nekk ni tàngal ceeb bi dafa bari da nga manque wala lan la. <laughs> Hmm, mooy. sama collègue bi léegi ñëwoon na ci léegi mooy dañuy gis yaa ngay way di di fomb say ngooñ da nga sa sa sa baat mooy daw sa yaram wala lan la sa bët day metti wala lu xew. léegi tout d'abord maa ngi lay nuyu y a toujours fan si demander live Titi mosuñu ko am ci marché bi et vu ça fait des années depuis 2009 wala 2010 la Titi gëj a génne live cassette ci marché bi moo tax bi yoon ñi def cinq. titre yoo xamante ne live la jël kaat yu bees tax def ko ci biir te foog naa ne li nga mujjee déglu léegi nii ak li ci topp mooy yu bees yi la génnee te foog naa ni déglu woo ko moo tax nga ne dañu manqué inspiration parce que boo ko déglu woon thème bi ci nekk ci boppam sax mënoo ko dindi parce que thème bi ça actualité li xew léegi ci dëkk bi moom lañ si def beneen bi mbëggeel lay wax mi ci biir maam Saliou bi c'est un acoustique donc kon dégluwaat bu baax parce que foog naa ne les six mois wala huit mois yi ñu liggéey lañ doon def on a bien travaillé c'est important nag artiste bi def live cassette parce que gëj na parce que dangay gis koo xam lee léeg day voyager ci otoom bëgg a déglu live titi du ko am am ku nekk ci avion bu ko def ci téléphone pour déglu ko du ko am moo tax sax bi yoon ñu waale ko ci mais du manquer d'inspiration parce que ñu ngi deux albums yoo xam ne sax fi ko teg laalaguñ ko sax yu bees sàq la mais yooyu dañu ne nañu génneel nit ñi d'abord li ñu soxla du tere ñu rajouté waale leen ci quatre son yu bees sàq yoo xam ne ku ne mën ci gis boppam loolu moo tax pour lu ni ah, sama liggéey en tant que artiste moo leen neex si man façon bi may woyee moo leen neex si man moo tax ñuy def collaboration ak man liggéey ak man pour problème climatique bi am léegi ak euh, problème violence yi am léegi pour ma nekk si ambassadrice véhiculer ci samay chanson loolu moo tax ça fait euh, deux ans may liggéey ak ñoom ah, pour question ki bi nga wax sama cheveux bi nii moom laay def ni mu ne bu ne di ko aj jël sama loxo di def nii mais san ne veut pas dire que ne je pleure non loolu la. asalaamaaleykum ak salaam. Khady Diène du site clairinfo.com. Khady voilà Titi dañ gis Titi danso son nouveau style bu bëggoon nga revenir si expliquer ñu le pourquoi. ci sa woy yi tamit dégg nañu nga jëlaat ci au mari de Johnny Hallyday mhm. lu waral loolu pourquoi Johnny Hallyday mhm. depuis quelque temps également on a vu une publicité ci 2 di wax que ni album bu bees bi jël leen mhm. c'est pour les euh, fans de Titi da nga koy joxe lu waral sa euh, nouveau cette nouvelle démarche de Titi merci. merci beaucoup léegi euh, pour look bi ngay wax aussi bëggoon naa laajaat la ci tuuti lu tax nga ne dama ko changer. sama look bi nga ne dama ko changé ah ah d'accord acoustique d'accord waaw pourquoi acoustique bi parce que mooy comme li ma koy wax rek comme moom dafa ne peut-être on n'a pas travaillé moo tax ma ne ko mu déglu album bi parce que les huit mois qu'on a fait six mois on a bien travaillé indi beaucoup de couleurs pour ñëpp parce que léeg-léeg da ngay kii ne la acoustique laa bëgg nga génn kii na la traditionnel nga génn kii na la moderne ñu jël yëpp nag boole ko tënk ko ci benn album génne ko pour melomaan mën cee jot loolu moo tax acoustique bi aussi comme ni ma la ko expliqué da ngay génne nit na la acoustique laa bëgg nga génne kii na la mbalax laa bëgg donc doo mën a def benn album rek génne ko nii donc vaut comme ni ñu def jël acoustique bi jël traditionnel bi jël mbalax bi tënk ko def ko ci benn album xam ne képp ku ko doon laaj di nga ci mën a sentir sa bopp loolu moo waral même acoustique bi ngay wax aussi yàlla most morceau de Johnny Hallyday que j'ai repris moom moo ci nekk euh, jazz mbalax bi ma doon expliquer sànqa parce que dafa nekk kenn koo xamante ne bi damay sentir musique am moo tax set année sii ma jël euh, benn ci ay woyam reprendre ko mun ko jox fan si lu ma tax. salaamaaleykum. Titi ay euh, journal enquête man j'ai trois questions mhm. premier bi mooy ñëpp xam ñu gën nga Prince Art donc dama bëggoon laaj euh, album bu bees bi kan moo ko def kan moo def arrangement yi ak est-ce que da nga bokk ci beneen label bu bees pour def album bi donc deuxième question bi dégg nañu remix yi Alaaji As Maam Saaliwu nit day xam boppam laa jot a dégg donc nga def remix bi lu tax nga choisir morceau yooyu parce que tiiti dañoo tàmm bu génnee CD yépp nañuy këru sénégalais yi yëpp nañuy déglu donc lu tax nga choisir trois morceaux yooyu pour def remix lu tax choisir yeneen morceaux yi bien vrai que yi moom neex na trop donc troisième question sorti album bi kañ la kañ nga koy def ak euh, yan promotion nga promo ngay ngay préparer pour gën a sénégalais yi gën a xam album yi gën a tàmm ko déglu quoi. merci beaucoup am euh, sortie bi xam naa après papis laay bàyyi moom dina leen jox. lu jëm ci affaire sorti bi léegi li nga xam ne moom moo jëm ci album bi euh, man maa am initiative bi sama idée la sama projet la ma toog xalaat ci ne war naa génne comme li ma la waxee parce que dama doon génne nit yi di ma laaj sama live surtout rawatina la tout dernier album bi ma génnee muy gën gi dëkk nit yi amuñu live bi boo xoolee ci laa jël ma jël gën gi dëkk jël nit day xam boppam alaaji aas mosuñu ko def live te ñu bare léeg-léeg soirée buñ ñëwee dañoo koy ñaan moo tax mu dugal ko ci biir dugal góoroo góor aussi ñu def ko mu nekk moom moom moo nekk na góore bi waaye da ngay gis ne après nit day xam boppam euh, kii bi gën gi dëkk la ñuy jël reprendre yëpp def ko live pour mun ko jox fan si ñu mun cee gis seen bopp ak bul ma fiire yooyu lañ def live waaye da ngay gis ne pour côté album bi initiative Titi la parce que nag il est temps nit ku nekk war a mën a wane ne mën nga demal sa bopp dëgg la album c'est pas facile. parce que ça demande de l'argent mën nga investir dix millions que mën nga investir quinze millions pour am produit bi nga bëgg yàlla def loolu am na ma gisanteeg sama benn xarit boo xamante ni vraiment bi ma ci waxtaanee ak moom mun ne ma loolu moom projet bu baax la nañ ci dem biñ ci demee aussi mu yóbbu ma ci papis biñ demee ci papis ñu tegal ko projet bi ma bëgg a def moom aussi mu indi ci benn touche bu rafet bu neex boo nga xamante ni jàppale ñu ci na ma loolu aussi man tamit dama koy rafetlu idée bu neex la tout ce qui est moyen tout ce qui est euh, financement maa def yëpp maa ko financé maa def lépp arrangement yi aussi comme ni nga ko gisee am na ci yoo xam ne papis moo ko def am na yeneen arrangement yoo xam ne man maa ko def ci morceau yu bees yi parce que tamit il est temps ma génne sama talent bi nga xam ne yàlla may na ma ko damay def composition di composer mais damay arranger aussi damay arranger damay composer damay bind donc loolu tamit il temps ñu génne ko moo tax on a fait quatre titres yu bees yoo xamante ne bi dañ ci sentir touche Titi sentir ci touche Papis vraiment sentir ci ñi ci jàpp ñëpp parce que aussi c'était une équipe nga xam ne ñoom ñëpp kenn taloo lekk kenn taloo naa ñoom ñëpp ñoo jug ñëw jàppale ma ci ma leen ciy gërëm di leen remercier léegi Papis su fekkee ne di nga mën a répondre ci question boobu. waaw euh, juste benn apport rek laa ci andi donc album bi on l'a ci sama studio avec euh, le groupe de Titi bon euh, pour me signaler lu ndaw rek groupe euh, Titi ils ont joué c'est des jeunes musiciens yoo xam ne qui ont joué l'album les l'esprit live bi nga xam ne nekk na ci biir album bi c'est le groupe c'est pour montrer un jeunes yi nga xam ne nekk nañu ak Titi que ñoom it màgg nañu léegi mu wane un peu le talent de son groupe ak euh, ci yoonum professionnalisme bi mais à part ça la réalisation ci studio bi moi j'ai participé il y a eu aussi d'autres musiciens professionnels qui ont participé comme Jeannot ah c'est le guitariste de Viviane qui a participé arrangement yi aussi euh, il y a euh, les musiciens comme Laylo qui a joué de la batterie les musiciens comme Jules Diop ah joué batterie Les musiciens comme euh, Tcherno Sar, joué la guitare basse. Les musiciens comme euh, Samandor, qui a joué les tamas aussi. Et un musicien comme Baba Karsek, qui a joué les percussions. Donc c'est un peu vous dire, les, les nouveautés, c'est les nouveaux morceaux, c'est les musiciens invités qui l'ont joué. Mais à part ça, les morceaux, ils reprendre. C'est juste pour montrer que l'orchestre de Titi a grandi aussi donc il faut ñu teg leen ci benn standing parce que ci man ci sama seetlu rek en tant que musicien eux ils ont grandi parce que c'est des musiciens yoo xam ne yaru nanu et sur man lii ma ëppal importance ci orchestre c'est des musiciens yoo xam ne yaru nañu te dañuy wane un beau spectacle donc l'orchestre de Titi c'est à féliciter parce que c'est eux qui ont joué les morceaux live te boo leen déglu c'est ci beneen feeling la parce que moom laa koy tooñ ma ne ko wax dëgg yàlla sa orchestre màgg na parce que fii orchestre c'est tellement difficile pour nga gérer ko maintenant elle elle commence à comprendre elle commence à gérer son groupe te leader la donc pour vraiment euh, apport bu ndaw rek boobu laa ci mën a àndaale quoi jërëjëf et la sortie de l'album Euh, exactement, c'est prévu le lundi. Hein? Ah, voilà, ce lundi-là. Mais exactement, euh, j'ai pris mail ou les animateurs et consorts pour ñu jox leen ko mais la sorti de l'album c'est le lundi euh, y aura quelques yoo xam ne dañ koy détaché mooy les lives de Titi yi nga xam ne moom la def dañ koy détaché pour donner ça aux fans moo tax mu tuddee l'album jël leen donc mais l'album yi nga xam ne comporté yi di comporté les neuf titres tout dina génn incha allah lundi te yooyu am na yenn partie yoo xam ne c'est tout l'album à vendre di ngeen ko gis ci marché bi ci yenn place yi mais am na benn partie yi nga xam ne ñoom lañu reprendre ça Titi l'a donné au fans merci. Titi ginnaaw bañ leen nuyoo dañuy laaj. Euh, fin année 2015 de début de mai 2016 euh, euh, yan mooy ambition Titi euh, en à travers donc ses fans ak projet yi nga xamante ni si mëbët nga ko ngir amal ko ndax Titi jël na pour def ay tournée génn Dakar dugg ci biir région bi ak sur région bi ak pourquoi Titi choisir mois yi pour def point de presse bi ndax sa communication da nga sentir ni dafa toogoon benn instant moom benn standby wala lan moo waral nga choisir ko jamono ji ak lan moom moo nekk objectif vraiment rencontre bi waa rencontre bi euh, këmb na ci liñ nekk doon liggéey comme yàlla def na liggéey nañ ko ba pare donc il est temps ñu woo leen invité leen ngeen xam si la lañ nekkoon parce que aussi comme on l'a dit j'ai bu may def dara wala bu ma nekkee ci dara àddina bi yëpp ñoo koy xam te ci démarche boobu lañ nekk parce que da ngay gisee comme ni ko si waxee lundi fan si yëpp dinañ am live Titi bi dañ leen koy offert comme nañ leen ko waxee di nga gis ne nag album bi ci boppam vu les cinq titres yu bees yi ci def kaat yi loolu dañu koy denc ba tabaski bi passé ñu doog ko génne parce que vu nit ñi fi ne ne dañ nekk ci affaire tabaski euh, am na nu fi demee daal du dëkk mais booy def euh, communication wala nga bëgg a def promotion du la ngay da ngay toog benn jour rek nga ñëw rek yebbi yëpp non ku ma xam xam ne dama bëgg di def lépp lentement et sûrement. moo waral tey lii ngeen xam ci lan laa nekk ñu mën a tàmbali nag à partir de tey jublu ci promotion bi loolu moo tax. salaamaaleykum Titi salaam. DJ Yves 2STV maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa lay fay lu bari Yves et puis euh, defe naa ne awma question pour yow c'est juste pour encourager la ci liggéey bi nga xamante ne def nga ko muy sa album bi nga war a génnee parce que xam nañu ne jigéen. ci label bu mag génn pour demal sa bopp dafa xaw a metti te gis nañu ne bi nga ci génnee ba léegi yaa ngi jël sa yoonu bopp gëm ko mooy comme li nga wax ci sa morceau bopp nit day gëm boppam donc loolu c'est à encourager parce que tey ñu ci bëri xëy na mënoo leen ci bañ a fekk wala ñu nelaw mais yow da nga gëm ne euh, liggéey la bu booy continuer rek te yaa ngi ànd ak sa staff ñu ngi leen di encouragé bu baax a baax. donc li ci topp nag dañuy ñaan yàlla album bi nga xamante ne génne nga ko li ci topp yàlla defal la ci liñ ci bëgg. merci amiin merci. Binta Diouf L'As Quotidien dama la bëggoon laaj ne yow euh, bu njëkk ba sa promotion kii moo ko yoroon Prince Art après nga dem des médias léegi bëggoon nañ xam lu tax nga ñëw léegi fii 2STV léegi sama dernière question mooy euh, lu tax nga tuddee sa album bi jël leen léegi ak la mooy raison yi. jërëjëf Deme Dia euh, maa ngi liggéey ak ñoom mais man titi titi Sénégal laa comme je toujours di parce que nag sénégalaise laa fii laa juddoo fii laa yoroo fii laa màggee ñëpp ñoo ma bëgg ñëpp ñoo may jàppale et aussi euh, ñëpp gis nañ ne ni may liggéey ak 2STV noonu lay liggéey ak seen TV noonu lay liggéey ak télé yëpp tëjuma sama buntu pour kenn. tele bu ma tendre loxo damay liggéey ak yow rajo bu ma ubbil sa bunt it dama fay dugg parce que aw ma frontière fenn titi sénégalaise la titi mbalax pur et comme ni ma ñëpp xamee parce que boo di dégg toujours samay way maa ngi naan nañu booloo nañu nekk benn parce que àddina dafa jeex ñu rafetoo ñu nekk benn soo bi ñu duggee ko marché loolu moo tax des médias aussi comme ni nga ko waxee bu ñu fi jógee tamit am yeneen yuy def ak ñoom tamit dañ koy continuer def muy Walfadjri rek fu mu mën a doon dañu koy def jërëjëf. d'accord donc dafa amoon juste benn incompréhension parce que wax nga album bi après tabaski lay génn donc euh, Papis nee na album bi lundi lay génn donc moi j'ai pas compris. non non live bi. live bi waaw live bi dañ koy génne lundi. boobu moo tax sax moo jël leen bi mu doon laajte. loolu moo tax ñu ne jël leen live bi la ñuy offert aux fans. mais comme ni ko Papis waxee am na ci yu bees yoo xamante loolu dañuy bàyyi ba tabaski bi ba pare. ñu mën ko distribuer nag ñëpp mun cee jot mooy yu bees yi ñu leen wax moom lañ dugal ci biir parce que da ngay gis ne sax beaucoup de gens du ñu mun def distinction bi parce que tellement que live bi dafa xam nga live xam nga dafa xumb mooy loolu ba nga xamante ne bii nag pour ñëpp mun a comprendre l'idée qu'on a amené cette année ñu bàyyi fan si jël leen jël live bi enjoy si mais kenn du leen ko jaay dañ leen koy offrir duñ ko jaay kenn Alassane le soleil boo man li nga tuddee mbalax jazz laa xamul te bu boo ma ko expliqué bëgg naa xam aussi ci ban morceau la lañ ngay woy mbalax jazz. jazz mbalax mooy ci Johnny Hallyday bi. ci Johnny Hallyday bi waaw. merci. merci. Euh, Titi bëggoon naa la laaj aussi. comme ba nga nekkee pressar ñoo peut-être peut-être sa voix kese nañuy soxla lépp ñoo ko def promotion bi ak yi léegi yaay demal sa bopp yan difficulté nga gis bu baax xam nga liggéey bi exactement léegi lu mu demee ak promotion bi lu muy demee yan difficulté nga ciy dund dëgg-dëgg ak ban touche nga apporté sa album bi arrangement yi yaa koy def ban touche daal bu bees bi ñu xam ne Titi bii moo ko def ci album bi bu bees bu bees bi muy génne donc ban touche nga ci apporte ak jafe-jafe yi ñu ci jànkonteel pour euh, demal sa bopp xam nga demal sa bopp moom yàlla ko yor lu dëgg parce que fii bi ma amee idée projet bi rek ñëw teg ko ñi ma ko wan ñëpp d'accord si rek loolu da nga gis ne idée la donc kon yàlla defal ma sutura def naa ko ba féete na buur promotion bi aussi cette année ñëpp gis nañ ni ma ko changé yéen laa njëkk invité. pour ngeen gën a déglu xam li may liggéey lan la après lépp luy télé wala lépp luy rajo dinañ ci jot fan si jot ci mu continuer sama promotion comme je l'ai toujours fait parce que dëgg la nag liggéey ci label neex na torop neexul waaye foog naa yi demal sa bopp it dara daaxu ko parce que soo amee sa suum bi naan bu subaa nga gis sa ginaar reetaan dina tax nga gën a jege suñu borom te dafa neex donc kon loolu mënu ma cee gis lenn lu metti wala lu may jaaxal parce que tàmm naa ko parce que moi dëkk naa Guinée cinq ans yoo xam ne man maa doon épaulé sama bopp même bi ma ñibbisee Sénégal fii xamanteeg la label bi ma fi doon liggéeyal aussi ménager naa fi sama bopp deux ans yoo xam ne nit xamu ko parce que tamit lépp bi ma ci yàlla jotee may xam naa sama liggéey ba nga xamante ni tamit donc kon maa ngi ciy sant yàlla lu ma lu ma ci fekk rek ma xam ne loolu moo ànd ak sama liggéey. donc euh, ñu dox sunu jigéen Ndeye nuyoo bokk. waaw Papis mag lay nuyu di nuyu euh, képp ki nga xam te ne rek mi ngi fi teew euh, di wax rek ne kontaan nañ torop tey ji tew fi xanaa rek di laaj Titi instant bi ana naka la dundee rek maanaam temps bi nga xamante ne toog na ko ak instant bi lii nga xamante ne rek yaa ngi koy waajal nga bëgg a boole nga ne live ngay boole ngay génne pour say fans ak trois yi nga xamante ne da nga koy denc quatre sons yi nga xamante ne da nga koy denc rek ba après tabaski lu tax nga def choix boobu. day fay RTV day fay waa choix bi euh, du lenn lu dul comme euh, li ma wax sànq mais xam naa comme yow yaa ngi doog a ñëw dafay am ñu bari yoo xam ne dañ may laaj sama live duñ koy am ñu waree di tukki duñ ko am nit nekk ci avion du ko am même rajo yi sax du am samay live da ngay gis li ñuy di tëgg yëngu leen wala léeg-léeg euh, yenn yi rek la ñuy jot a am loolu moo doon idée bi pourquoi ñu dugg studio defal leen son bu set bu baax bu toog boo xam dañ koy mix. defe ko ku ci nekk mën ci gis boppam boobaa ñu mun leen fournir live bi comme ni ko fans di soxlaa ci biir loolu aussi on a décidé de ne euh, pourquoi pas rek live bi kese dëgg la am nañu album bu nga xamante ne bés bu jotee dina génn mais du tere bi comme li ñu yàlla may mi ngi fii ñu tibb ci rek jël ci ñeent yoo xam ne du tere dañ koy baaxanteel képp koo xamante da ngay déglu Titi képp koo xam ne da ngay santé Titi loolu moo waral deux idées yi ñu nuyu sunu doyen Kolos ñu bàyyi la kàddu bi ñu nuyoo et puis tëj. waaw maa ngi nuyu ñëpp di leen bëggee maa ngi nuyu ñëpp leen bëggee depuis sànq mbir mi am na solo déjà ñaari morceau yi nga xamante ne Titi playback na ko fii surprise la ci man euh, waaye tamit du surprise parce que moom dama ko xamee benn mbir boo xamante ni mooy. su taxawee sur scène même su répété wul ak groupe am dafay nekk te loolu dafa am solo artiste dafa war a nekk koo xamante ne du dépendre rek ci papier bi nekk ci kanamam wala li mu nekkoon doon ko joué démb bërki démb artiste li ci am solo mooy sooy joue mu nekk loo xamante ne day ñëw naturellement nga jox ko public bi di sentir public bi di leen jox li nga xamante ne moom mooy li ñuy laaj te loolu. moo tax man su may dem soirée dama am xel mu daal léegi nag li nga xam ne moom lay génne nii bees li ma ci gis moom mooy lépp it la lépp it la wax naa ko bu yàggul moo ko invité benn jour ma ne ko yow yàlla dala may loo xamante ne da ngay génne album mu am plusieurs it déjà le morceau yi boo ci déglu euh, da ngay sentir ne am na lu bees tey dem naa soirée mu fekk ko muy def live mu woy morsa euh, marchand ambulant yi d'ailleurs bi mu koy woy ma sentir ñi nga xam ne noonu leen di wooyee lii marchand ambulant bu ko déglu yaram war naa daw thème bi am solo nekkaat actualité donc loolu muy lu am solo di woy lu am sens loo xam te ne dañ koy dund dafa baax heureusement que Titi moom ci boppam dafa xam ne moom dafa mën a woy heureusement mu xam ko am na ñoo xam dañoo mën a woy te xamuñ ne dañoo mën a woy am ñoo xam ne mënuñoo woy te pour ñoom ñoo dàq woy waaye heureusement que moom mu xam ne dafa mën a woy waane teg ci te loolu moom moy daaneel ci moom moo tax su ma dee animé tànk teguma ko du ma am jàmm moo tax soo leen dégloo émission yi may def yëpp Titi day nekk ci biir bu baax baax baax ma bëgg ngeen tàccuwaat ko bu baax baax a baax. <laughs> ngi leen di gërëm nag di leen remercier ci seen teewaay yéen ñëpp képp ku fi teew rek.